non affaire caaxaan la rek xam nga. ah <laughs> wax ñu lu tax caaxaan la xam nga c'est domage au Sénégal que nit ñi au lieu def sunu xel ci liggéey ñàkk jariñu comme ni ko sunu sëriñ su baax comme sëriñ Tuubaa ni ko waxee. ak Cheikh Rafal au ñu roy ci ñooñu dañuy jaar ay raccourcis yoo xam ni kenn xamut lu muy niróol. Hmm. bu kii tëbee ne yaa naa maar sànni xeer yuuxu jëm fële kay jóg fi ne tout va mal suba kenn na jëfe ne ça chauffe keneen nag nag xam nga yooyu yëpp c'est créer ay mouvement pour ñu xam la la rek. mais Birima attends ma rek ma gal da ko bàyyi da nga bàyyi. j'aurais aimé nga bàyyi ko. vraiment mu wax après moom mu wax li mu xalaat. waaw xam nga Sénégal réew mu ñàkk la mu amul dara. Mm. il faut ñu dem ci débat boobu bu ñu naxante. xam nga ko xam naa ko xam na ko. non yow xam nga ko. aux États-Unis d'Amérique ñi jàpp ni ñoo ëpp doole ci àdduna bi ñuy chômer nga fa en France ñuy chômer nga fa Sénégal ba Macky Sall buy wàcc keneen kiy falu ak ku man di falu di nga fi fekk chômeur di nga fi bàyyi chômeur. bon yow du instant bi du man rek. ngay wax non dama dem li am laa lay wax la démarche en fait. may ma wax la ba ma eggali ma. yu mel ni jëru sax di encourage ci réew xam nga tout va mal Macky Sall ci moom xam na ni moo ci moom xamal na boppam ni la mu li mu li mu li mu xalaatoon ni noonu la war a def yépp munu ko def amul benn président au monde bu mën a respecter programme am à cent pour cent même ñuy gérer des pays man koo def day am lu baax am lu tane am lu bon dañuy ñaan léegi li baax ëpp li bon on est bien d'accord mais biir ma ba tey waaw même rek mais xam nga tëb yeewu. oui créer mouvement tout va mal nga jox ko parole mu wax. ba léegi mënu la wax exactement wax ma yow mi ko déglu exactement tout va mal boobu fan la bu nekk nan la bu nekk lan lan la. non mais li li mu wax c'est très clair. non ma rek ma wax la. je suis désolé je suis désolé. je suis désolé sama dox ñeneen ñoo si ñu dox vous êtes en train de euh, dire des choses yoo xam ne Pascal s'il vous plaît. waaw d'accord non merci. Pascal s'il vous plaît après on va faire tour après nga réagir. dafa wax ni man dama bëgg nga wax ma déjà balaa ñuy ñeneen ñi mën a wax démarche bi maanaam ñoom démarche bi ñu def en tant que jeune. mais ànduma xam nga lu démarche bi la ko tax a jóg. oui ku ne ngu sëb mouvement bopp pour ñu xam la reconnaître la pour négocier ak yow. très bien leen amu fee caaxaan la très bien Papis loo xalaat si démarche bi